édition grand oral foofee ci réew mi TV ci la xam ne ne jafe-jafe yi nga xam ne rek moom la Touba di jànkoonteel ci jamono ji nag jëm ci wàllu mënd mi nag loolee lépp nguur gi fi nekkoon moo leen ko yóbbee ndax yorin wu bon wi mu yoree woon nag lu ci wàllu assainissement beeg na mu géré woon wàllu inondation bi donte ni ay koppar yu bëri la ñu daan xam ne moom la ñu ca dugal waaye terewul fii nag ñii di askanu Touba ñu ngi dund ci ay jafe jëm ci wàllu mënd mi waral ba moom directeur bu ONAS di docteur Cheikh Dieng ma ngay sàkku ci Jomaay Faye ak Sonko nag ngir ñu daal di moytandikoo def erreur bi nga xam ne rek moom la fi ñu fi jiitu woon nekkee moo doonoon ganu grand oral ci réew mi TV yër leen boobee yëglekaay l'observateur feelu ko ne ko lu jëm ci wàllu inondation bi kay ca Touba nag Serigne Bassirou Abdou Khadre ma ngay soññ gouvernement ñu daal di ciy wut ay saafara ci biir yëglekaay bi nag ma ngay dellu suwaat ci li nga xam ne rek moo gën a jàmp ci saa si ngir ñu daal di koy amal te mooy ñu daal di évacuer ndox yi nga xam ne rek moo fees dellu ci këri jàmbur yi yéenekaay beneen ne lu jëm ci màggaluk Touba kay nag sëriñ Bass ma ngay dellu suwaat ci urgence des ba tey ca dëkk bu sell boobee di Touba addu ci beneen yëglekaay mu di Vox Populi moom mi xëyee niki tey ji ci tukki ne meeku bi nga xam ne rek njiitu réew mi war na ko amalee foofee ca dëkk bu sell baak ñiy fare ci wàllu opposition bi yéenekaay bi ne Touba jamono ji nag mooy célébé yoon way politique yi Serigne Mountakha dina dalal ñeenti fan ci weeru ut kii di président ba Bassirou Diomaye fay yéenekaay bi dellu siwaat ci ndigal yi nga xam ne rek mu ngi bàyyeekoo ci kilifa yi jëmale ko ci maire bu Touba Baye Fall yeeg nga xam ne rek ñoo yeewoo ca Touba ñu bëgg daal mooy visite boobee nag ñu daal di koy amal ci anam bu jaar yoon ci noonee nag moom maire bu Touba ak ki yore kàddu xalif général des Baye Fall ña ngay xam ne ni daal daañu def seen kéem kàttan ba boobee événement daal di am ci anam bu jaar yoon xalif général des Mourides nag Serigne Mountakha Mbacké ma ngay fësal xaritoo ak kóllëre gi nga xam ne rek dox na ci digganteem ak Amadou Ba ma ngay xam ne ni sama diggante ak Ba wóllëre gu sincère moo ci nekk kàddu yooyee xalif bi yëkkati nag yéenekaay bi ne jur na mbégte bu baax a baax ci ki fi nekkoon premier Ba nag di xam ne ni lu mi nag dina ci àddu jëmale beneen yoon waaye nag nañu xam ne daal gouvernement bi yi fi nekk nag ñeenti weer képp la ñu fi defandi nag faaw rek ñu daal di am patience te bàyyi leen ñu liggéey Walf Quotidien daal di xëyee tey ji nag ci tukki ne meeku boobee moomal mu toll nii won na APR ginnaaw ba jël aw yoonu boppam Sud Quotidien ne ko ginnaaw ngaa ñuy metti yi mu doon dégg boobaak léegi nag moom jiital ku jëngi nag daal dinay amal génnam gu njëkk jëmale ko ci weer yi nga xam ne rek moom la fi nguur gi fi nekk jot a amal yéenekaay bi ne Amadou Ba ma ngay bi nag ma ngay accordé ab délai de grâce jëmale ko ci régime bu Jomaay ak Sonko l'info yëglekaay nemmeeku bi nga xam ne rek amalee na ko foofee ca dëkk bu sell ba di Touba yéenekaay bi ne Amadou Ba ma ngay amal beneen doxalin bu yees jëm ci wàllu ku jege nag moom ma ngay xam ne ni daal dina àddu jëmale ci situation bi nga xam ne rek moom la ñuy nemmeeku jamono ji nag ci biir réew Sénégal waaye daal ma ngay leeral ne nag faaw ñu dal te ànd ak tey ndax gouvernement bi fi nekk nag yàggaguñ ci bopp réew mi faaw kon ñu daal leen di may ab néggandiku bu ko defee ñu daal di liggéey sama tànk yi ma indi fii ci diwaan bu Touba nag ay tànk wóllëre la ak nemmeeku jëmale ko ci xalif général des mourides sàkku ci moom ay ñaan nag kàddu yi mu yëkkati nag dugg na lool ci sama xol reconnaissance bi nga xam ne rek sëriñ bi am na ko ci man daal sedd na sama xol lool Le Quotidien yëglekaay ne ko ancien premier ministre Amadou Ba sëriñ Muntaxa ma ngi koy ñaanal addu jëmale ci leneen lu soxal nag reconnaissance beneen bu jëm ci juróom benn tirailleur africain yi nga xam ne rek faatu woon nañu foofee ca France yéenekaay bi ne Ousmane Sonko ma ngay corriger Macron mi nga xam ne rek moo njiital Pastef ma ngay sàkk ci gouvernement bu France ngir mu daal di soppi toll nii nag daañu ci indi ay yeesal réew mi quotidien ne Ousmane Sonko kay ma ngay dal ca kaw gouvernement bu France Vox Populi dellu soit ci relation bi nga xam ne rek moo dox diggante France ak Sénégal yéene kaay bi ne lu jëm ci wàllu massacre yu caaree 44 nag tax na ba gàññante bi mel ne tulleeg maa lay ci diggante France Ousmane Sonko ak Bougane Gueye Bougane Gueye Dany ma ngi koy xamal ne naam caaree 44 baax na waaye a àddu juróom-benn yi nga xam ne rek faatu woon nañu ci diggante deux mille vingt et un jàpp deux mille vingt quatre ak protocole bi dox ci seen digganteeg Macky Sall loolee moo gën a am solo tribune yëglekaay ne bugaan kay jamono ji nag mayul dara kii di élimaanu jëriñ bu Sénégal point acti ne Ousmane ko jamono ji nag ma ngay dal ci kaw France bugaan Guèye Dany ma jambal Diagne ak Thierno Alassane Sall di tontul waa France moom Thierno Alassane Sall di ŋàññi nag démarche bi nga xam ne rek nguur gi mu ngi koy amal jamono ji nag ma ngay xamle ci biir yëglekaay bi ne dañoo diggoon ab rupture waaye gis nañu ne nag bi la yoon mooy ñaareel bi ñuy nemmeeku na njiitu réew mi ma ngay dem ca France ci diirub ñetti weer yi nga xam ne rek moom la jiiteegum réewu Sénégal yéene kaay bi ne Sénégal ak France daal jomaay ma ngay réinventé waat te lu jëm ci relation diplomatique yi Ousmane Sonko moom di génn feneen wax ci leneen lu soxal wàllu wér-gu-yaram gi ak la Soleil yëglekaay ma ngay xam ne ne lu jëm ci feebar bi nga xam ne rek moo di feebaru roño Sénégal amati na ndam ginnaaw ñeenteelu transplantation rénale bi nga xam ne rek amal na ko yéenekaay bi ne ca l'hôpital militaire bu Wakaam nag foofee lañ doon amalee pénal bi nga xam ne rek am nañ ca ndam ginnaaw ñetti ñi nga xam ne rek defal nañu leen ko ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weeru novembre atum 2024 am na beneen ñeenteelu doomu aadama boo xam ne rek Sénégal réussir na ko ci samedi ji ñu weesu lu jëm ba tey ci wàllu transplantation rénale yooyee nag l'observateur xëy na àddu ci ak waxtaan bu am solo bi mu seex ak professeur Alain Khassim Ndoye moom moomee nag nekk ca HMO la daan teg ma ngay dellu soit ci misère yi nga xam ne rek moo am ci wàllu transplantation rénale ci biir waxtaan woowee nag ma ngay leeral ne Sénégal amul ay moyens ngir mën a sori ci lu ni mel léegi ñu daal di koy dakkal jeexale yëglekaay yi ak wàllu tàggat yaram beach soccer la ñuy àddu jëmale Sénégal qualifié na mu di onzième fois bi nag ginnaaw bi mu dumaa waa Guinée juróomi bal ci benn loolee waral nag ba Sénégal daal di décroché onzième qualification ci wàllu kaan bi jeexaleek sunu làmb ak derbi bi nga xam ne rek ñii di waa Alburax bëgg nañu koo tëgg ci diggante Pikine ak Parcelles yéenekaay bi ne Ama Baldé moom noppi na waaye blocage bi jamono ji nag ci franc la nekkee mbokk yi léegi noonu fas yëglekaay jàmm ak jàmm